yégué réaction bi di si Ayib dafa la yégué ni mom il a été radié si li nga xam ne que modi di lycée exactement alors benn alerte boo xam ne itam tribunal ñu koy daal di def euh, fu mu toll nii ñu ne euh, ña fa nekk am droit filmer euh, audience bi li nga xam ne itam moo fay daal xew donc il est exactement 14 heures passé de 28 minutes 13 h 12 minutes jàpp neen fa kenn ci salle ba yóbbu ko directement ci oto gendarmerie bi la ko waral ñu ne amuñu droit daal di filmer li nga xam ne moo di audience bi donc moom loolu la ko daal di exactement donc ñu daal di ñëw ci ki nga xam ne moo euh, maître Khady Camara maître Khady Camara mom tamit avocat la avocat la jëm Ousmane Sonko exactement mom ki n'a xamne que maître Khady Kamara mi ngi agent judiciaire de l'État alors mom lim wax euh, que ne dit pas comprendre pourquoi l'État du Sénégal gaspille de l'argent avec ce pôle d'avocat l'État a procédé le 19 septembre dernier par une certification par voie d'huissier visant à notifier pour plaider la euh, folclusion ce que nous refutons c'est infondé L'État envoie euh, ses émissaires euh, dans les plateaux télévisés pour dire que Ousmane risque d'être radié ou euh, est en cours d'être radié. Raison pour laquelle, quand nous avons saisi la CDAO, nous avons joint l'extrait de l'émission de l'ancien ministre de la Justice, Ismaël Fall, qui parlait de la radiation de, notre client, qui n'était pas effective exactement. Donc, qui n'a pas que Maître Kamara,

le fépp rek di Ousmane Sonko raison pour laquelle sax ñoom li nga xam que mu di e e yóbbu émission bu doon wax ni que ni euh, ki Ousmane Sonko euh, kenn rajaw ko si li nga xam euh, donc l'extrait de l'émission de l'ancien ministre de la justice Ismaël qui parlait de la radiation de notre client qui n'était pas effectif manam radiation bi nak egul eggul exactement donc ñom le preuve la bi nga xamni ne itam teg stable gi euh, devant li nga xam que le juge euh, John Tayji fa nga xamni tam itam moo di ko tribunal ba alors ñom japp nañu Ismaël Madior Fall bi nekkoon euh, un ancien ministre de la justice justement mom Ismaël Madior Fall dem neen sax ba jël ben extrait bi nga xam tam doon wax ni que ni Sonko radiation par pareegul exactement loolu sax ay seen preuve yi devant la mu na paradoxe dans euh, le fait que ñu sa radiation n'est pas encore effective mais malgré cela nous kànkal ko sa fiche de xam nga euh, radiation effective. Hmm. ma tegal la si euh, en droit dafa am lu l'autorité de la chose amna aussi lu ñuy woowee une condamnation définitive hmm. lépp li nga xam les dossiers pendants yi nga xam ne jël nañ ko teg ko ci kaw euh, Ousmane Sonko hmm. amagul une condamnation définitive moo waral ba tey ji un processus bi nga xam ne koy déclenché hmm. léegi nag tu étais en train de parler euh, de l'ancien ministre de la justice euh, ancien garde des Sceaux ismaël Madior Fall mais moom euh, soy xool à chaque fois mu guen yëkëti ay kàddu. da ngay mm. gis de l'autre côté il y a des juristes euh, qui ripostent. Mm. légui nak man quand je l'ai entendu dire que il faut faire la différence mm. entre le ministre de la justice ak nit bi nga xamné ne dafa nek sur un parti. ci benen côté bi moom l'a gëna démé parce que euh, au début ismaël Madior Fall ñun ñëpp xam nek c'est un homme de droit c'est un constitutionnaliste. bo xamné ci walum yoon lañ xamé mais depuis que mu commencé wané sa position moy waral vraiment accréditation ak peut-être. Euh, euh, peut-être li nga xamante ne moom mooy jëm bi ko gars yi joxe woon demeewul woon noonu. Mm-hmm. parce que dañu dem ba situer exactement moom fan lay waxee. Mm. léegi nag bon y' a eu ce changement je vais pas trop accentuer euh, sur ki nga xam ne moom moo nekk ci wàllu mboobu. Mm. mais dama lay wax dara Serigne Fallou. on essaie de bloquer Ousmane Sonko afin qu'il dépose un dossier incomplet au niveau du Conseil constitutionnel. Mm. li ma lay wax ni démb j'ai écouté le juriste Pape Moussa Sow mu yëkkati si ay kàddu maintenant le Conseil constitutionnel a la prérogative d'interpréter de manière très large hmm. toutes ces choses-là. Quelle que soit l'issue des procédures, Ousmane Sonko m'a dina dem déposer ces dossiers même su que hmm. amul gain de cause le tribunal bi nga le euh, pôle d'avocat actuellement. Sans qu'il y ne y a possibilité de pourvoir mais par contre il y a une autre procédure bo xam ne ñoom nañ ko déclencher. Hmm. sànq maa la expliquer ne la am la prérogative jël un dossier dem déposer ko au niveau du conseil constitutionnel. Hmm. Donc, si léegi nag su moment bobu non ñom ils auront la prérogative d'interpréter de manière très large. Hmm. processus bi nga déclenché nañ depuis le commencement du parrainage ba tay ji fi ñu ni donc yakarna actuellement le constat qu'on fait moy le pôle d'avocat si tant qu'ils ñu nekké ni, ils sont dans une base très solide. Hmm. Amna ay avocats yo xamné ñi ngi wax pourquoi sax la multiplication des euh, des agents euh, judiciaires. C'est une Fallou. mu nekk benn question bo xamné nit yi hmm. ñu ngi def ay hmm. point d'interrogation. légui demal si histoire politique au Sénégal. vent en arrière. essayer de relever peut-être. ben moment bo xamné état du Sénégal ñi ngi doon def un pourvoi. certains te diront que c'est la première fois donc moo lay wan wan nekk que yi nga xam ne moom la ñu nekkee nii. Mm. c'est uniquement pour ne pas voir Ousmane Sonko se présenter sur les élections de 2024. Mm. yow xam nga ko man xam naa ko ñi nga xam ne ñi ngi seetaan xam nañ ko. on n'est pas là pour mm. faire des prises de parti wala di wax lenn loo xam ne ci benn côté bi moom lay demee nous n'allons pas rentrer dans le fond mais par contre il y a des faits yi nga xam ne ci loolu moom la ñuy il faut revenir en arrière Sëñ Fallou xam ne que ce pays ne mérite pas actuellement ces genres de choses là surtout. le président Sall en 2011 est-ce que ce qu'Abdoulaye Abdoulaye Wade défend Yann Mbiri, il sera au pouvoir hmm. Je dirais plutôt non. Hmm. Actuellement, qu'est-ce qui se passe dans le champ politique Il n'y a plus cette liberté d'expression. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le champ politique Momo Waral Taïdi, nous sommes dans un cadre inapproprié. Élégance politique, dafa hmm. war am dans le lexique politique. donc il y a c'est des choses qui xam ne suñ ko rassemblé la conclusion qu'on en tire moi, on est dans une récession démocratique hmm. qui a amené une crise de la démocratie sénégalaise Dès que on remet en cause la séparation des pouvoirs des grands analystes te diront que vous une une démocratie actuellement alors donc mi ngi euh, par rapport ak li nga xam ne justement wal wun mel donc jàpp leen itam mu nekk une euh, analyse très très très très très très euh, pertinente par rapport ak wal wun mel donc fu mu toll nii nag chers spectateurs jàpp leen itam li nga les agents judiciaires de l'État ni ñom itam ñi ngi sen côté di daal di résister de de leur côté par rapport ak li nga xam ne argument yi nga xamni tam ay ay ay ay ay avocats avocat Ousmane Sonko ko sur la table wax na leen ko sank ki nga xam ne maître Camara mi ngi a di attaqué li nga xamné que modi di AGE si li nga xamni tam ñom ñoom ko comprendre exactement là aussi question là euh, par rapport à euh, plaidoirie bu ki nga xam que moo di Camara pourquoi euh, tey jii l'état du Sénégal mu déployé di de moyens ak ban intérêts si am si toutefois Sonko peut être est définitivement sur les listes est ce que tamit yëf yi amul mise politique bi nga xam ni itam dañuy faral di si Seigne Fallou légui xolal semaine bi nga xamné ne euh, moom la ñu mujjee woon génn. Hmm. yaa ngi dégg ñuy wax ay affaire de salafiste y une certaine euh, diabolisation. yaa ngi hmm. déggoon beaucoup de polémique allant sur Ousmane Sonko. démb ma déglu benn analyste politique mu ne est-ce que état bi xamuñu ñu que procès yi nga xam ne actuellement moo nekk en hmm. cours mun nañ si daanu. est-ce que du loolu moo tax tey jii ñuy jéem a ibbiwaat ay yeneen dossier après ma dégg wa jooju ne man le juge je le connais. Hmm. c'est un juge véridique et day appliquer li nga xamantene mom moy le hmm. droit est-ce que état bi ragalul tey jii Ousmane Sonko ñu jox ko gain de cause mo waral jour yi nga xamne mom lañu la ñu mujjee nga dégg ay mbir yo xamne ne won dégg. Hmm. est-ce qu'il n'y a pas une peur qui règne au sein que de l'État. on n'est pas en train de les indexer. on n'est pas en train de leur pointer du droit. mais dafa am ay mbir yo xamne mo moo ci kaw table bi et chacun et chacun est libre d'aller dans sa réflexion. Hmm, c'est clair mais soo xoolee actuellement processus bi nga xam ne en cours. Hmm. ak mbir ni mi demee actuellement ils ne sont même pas sûrs de lan mo wara a jóge hmm. parce que ku xool li xew a tribunalu euh, Ziguinchor dafa melni comme si on est dans la continuité. moo tax sànq maa lay dégg ben moment ngay wax arfan sax nan ko mais à quoi le but au fait ma dégg démb ki nga xamante ne moom euh, hmm. c'est très difficile de donner li nga xamante ne moom son ultime conviction. Hmm. parce que tout est flou actuellement. Hmm. mais xam nga lan moo a à ce que tous les textes yi nga xam ne la droit bi appliquer et man am naa yaakaar ne que Fallou yi juge bi def li muy def. dina jox gain de cause Ousmane Sonko parce que donc jàpp na ni di compléter. Euh, euh, complété euh, manquement yi nga xam ne itam suri woon nañ ko par rapport ak décision bi sawa si fa yëkkati woon si on applique si on applique le droit hmm. si le droit est appliqué si le droit est appliqué dans sa plénitude dañu wara jox gain de cause Ousmane Sonko si le droit est appliqué si le droit est appliqué dans sa plénitude dans toutes ses formes Ousmane Sonko dafa wara am li nga xamantene mom moy gain de cause mm, mm. quand j'ai entendu Daouda yëkkati ay kàddu wax que je connais le juge c'est une personne bo il est véridique amna naa yaakaar ne que dina appliquer le droit nañu espérer rek lolu mais attention xam juge bi warul tax ñu yaakaar ne que peut-être que ça mm. va se passer à l'état normal xoolal que li xewoon euh, lors de la décision qui a été rendue ñu bëri ñu woon ne que dinañ ko jël transfert ko c'est clair. léegi nag Fallou juriste yi tey jii une certaine clarté. Hmm. concernant les questions du droit. sénégalais yi tey dem nañu ba lan lan corruption de la jeunesse. sénégalais yi dem nañu ba ay mbir yu on ne savait pas est plus su il n'a pas l'expérience politique. Ousmane est en train de nous montrer que c'est un fin fond politicien. Parce qu'actuellement, Fallou, on est dans les débats de la science politique, mm, mm. stratégie. Mm. Quand Ousmane fait parrainer du c'est de la stratégie. Quand Ousmane aujourd'hui dit dit que pour nous tech un programme, c'est de la stratégie politique. Est-ce que l'État, est-ce que ils auront la capacité de venir débattre sur euh, les débats politiques on pose des points d'interrogation. Est-ce que l'État aujourd'hui aura la capacité de débattre sur les idéologies Ben poser question. du si xam dara. du yàgg tuuti dinañ si hmm. xam euh, allah de je vous rappelle que c'est une édition spéciale daal exactement ces première partie bi par rapport à li nga xam que les réactions des avocats d'Ousmane Sonko leur plaidoirie Manu ni kon mais dama si daal di si nu exactement. Euh,